salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm Sen Sport 221 Idrissa Gana gi ak Ballo Touré duñu bokk ci match bi nga xam ne Sénégal war nañoo ko am ci àjjuma jile seen digganteeg gine ñoom ñaari joueurs yi kat dañoo dal di dégg maam dañ leen testé positif ci Covid bi xam nga tey jii dañu doon testé ñi nga xamante ne ñoo di gaynde yi ndax match boo xam ne war nañu ko joué rek ci kaan bi ñaari fan balaa match bi maanaam 48 heures dañuy testé ñi nga xamante ne ñoo di képp koo xam ne war nga joué ci jongante yooyu le tey ji nag bi ñu testé gaynde yëpp ñaari joueurs yi la ñu gis ne ñoom dañu dal di euh, positif muy kii di Gana Gueye ak ki nga xamante ne mooy Ballo Touré jamono yi ber nañu leen duñu bokk ci wàccaay yi duñu joué ci boobu boobule ci kaw loolu am na ñoo xamante ne dellu sa nañu muy ki nga xamante ne mooy Nampalys Mendy Saliou Ciss ak pap Matar Sarr ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi woon Sénégal demaguñu woon sax Cameroun ñoom daal dinañ leen test négatif ba daal dinañu fekk ji ñi nga xamante ñoo di gaynde yi di waajal li nga xamante ne mooy jongante googule waaye nag jamono yi ki nga xamante ne mooy kii di Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy ji nga xamante ne ñoom dañ leen test woon positif ay jamono ci ginnaaw ñoom dellusee guñu ñoom nag li gën a wóor daanaka mën nañu wax ne duñu bokk ci match boobu lu dul rek ñu daldi leen testé négatif ci diggante bi ak lu mën a xew ñaar ñii moom tey ji dem nañu te duñu bokk ci match bi mooy kii di Ballo Touré ak Gana Gueye ñuy séentu ne xëy na balaa jogante kooku di agsi kii di Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly wala boog Bamba Dieng amaan na ñoom dinañu mën a wér ba bokk ci li nga xamante mooy wàccaay woowule Pape Matar Sarr Nampalys Mendy Saliou Ciss Mame Baba Thiam Famara Diédhiou ak ki nga xamante ne mooy Alfred Gomis ñii ne ñëpp jamono yi dégg nga dellu si nañu ba ànd ak gaynde ji waaja li nga xamante ne mooy jongante googule balaa ñu ñëw ci bitim réew dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy match yu xewoon ci bëccëgu tey bi ci coupe d'Afrique bi tey yi Tunis dañ doon joué seen diggante ak Mali waaye Mali daf leen dal di dóor benn bal ci dara Gambie dafa dalal dafa dal di dóor Mauritanie Gambie dafa daal di dóor Mauritanie moom itam benn bal ci dara benn biiw ki nga xamante ne mooy Ablaye Diallo Ablaye Diallo moom ancien joueur génération foot la da nekk fële ca Metz waaye ren nag ñu able ko fële nga xamante ne mooy ca Belgique moom Ablaye Diallo bii mooy ki marqué bii bi nga xamante ne Gambie am nañu ko ci match boobu doxoon seen digganteeg Mauritanie. Côte d'Ivoire dafa dóor ñi nga xamante ne ñoo di Guinée équatoriale benn bal ci dara. mën nañu wax ni kan bi daanaka mën nañu ko tuddee tournoi wu 1 ndax match yëpp yëpp yi nga xamante ni ndam am na ci 1-0 la jeexee ba mu des benn muy bi nga xamante ni Cameroun amoon nañu ko seen diggante ak Burkina boobu rek la ñu gis Cameroun mooy benn équipe boo xamante ni dégg maa marqué na ñaari bal ci benn jongante bi kaan bi tàmbali ak léegi su dul loolu képp ko fi am ndam benn bal képp nga daal di am. ci li nga xamante ni mooy kan bi kon premier journée yi jeex na ñu war a soobu ci li nga xamante ni mooy ñaareelu bëccëg bi niki suba voilà kon noonu la jogante yi dal di tëddee ci bëccëgu tey bile. ci match boobu nga xamante ne doxoon na diggante Tunisie ak Mali arbitre Zambia bi nga xamante ne moo ko doon arbitré tey ji dañoo gis ne daal ay njumte yu rëy rëy la def ci joŋante googu loo xamante ni xëy na mosuñu ko gis wala bariwul lu ñu koy gis ndax dafa daal di jeexal joŋante gi ñaari yoon ba fii ñu waxee li nga xamante ni sax mooy temps réglementaire bi jeexul match bi arbitre bi jeexal na ko ci 86e minute gars kaas mu dellu ñëwaat woote waat ñu footballaat li nga xamante ne mooy yeneen ñetti bañ demee ba 89 minutes 48 secondes mu daal di jeexalaat li nga xamante ni mooy jogante gi kon ba léegi ni temps réglementaire bi jeexul waxaguñu sax li nga xamante ne mooy jëm ci biirum temps additionnel arbitre bi moom daal di defaat li nga xamante ne mooy carton rouge bu muy joxe ci biir match bi ci jooru malien bi nga xamante ne mooy El Bilal loolu tam nekk loo xam ne lu tey xel la ndax faute la boo xamante ne xëy na sérieusul loolu waaye tam mu joxe penalty boo xamante ne tey na xel ay njumte yu bari ak njaaxum def na ko ci li nga xamante ne mooy jogante googu li ci gën a daw yaram nag mooy comme match bi nga xamante ne jeexal na ko ñaari yoon te li nga xamante ne mooy taabu jeexul loolu nag war na ba kayiti xibaar yu bëree bëri daal di ñëw ci mbiram ne arbitre bi daal dañu jàpp ne xëy na dafa am li nga xamante ne mooy jafe-jafe ci wàllu bopp bi maanaam problème mu cerveau am boog wala boog am na yeneen jafe-jafe lu waral muy def li nga xamante ne mooy looxur yooyu nga xam ne def na ko ci match tay bi moom arbitre bi nga xamante ni moom comme ni la ko waxee Zambie la kii di xibaar yi fisal nañu ne moom ci atum 2018 mosoon nañu ko fi teg ay daan ci mbirum corruption boo xamante ni na ko ci li xamante ne moo aju ci wàllum Ligue des champions bii woon ci fii di Afrique muy CAF Champions moom arbitre bi la ci la ko defoon nañ ko li nga xamante ne moom maanaam suspendroon nañ ko fi ay jamono bokk ci wàllum corruption danga maam ci la ñu ko daal di tuumaloon kon nag loolu bu ñu ko méngale ak li nga xam ne moo xew tey deram dina gën a yàqu wala boo xel dina gën a teey ci ay mbiram ñi nga xamante ni nag ñooy tunisiens yi gannaaw bi nga xamee ne arbitre bi dafa dal di woote waat beneen yoon ngir ñu war a ñëwaat ci li nga xamante ne mooy biir match bi ñoom ñëwuñu ñi nga xamante ni ñoo di ñoom ñoo ñëw ñoom képp ci terrain bi waaye daal euh, ñi nga xamante ne ñoo di waa Tunisie ñoom bi ñu leen woowaatee ngir ñu ñëw àggale li nga xamante ne moo des ci match bi ñoom dellu si waatuñu bu ñu sukkas ndekoo ci kayit di xibaar yi transfert ki nga xamante ni nag mooy Babacar Xuma Babacar Xuma nekk attaquant international sénégalais tey footballé fële ci Turquie ci club bi nga xamante ni mooy Alanya Sport moom kayiti xibaar yi dañoo fesal na jamono Saint-Étienne dañu koo bëgg Saint-Étienne ñoo bëgg signé ki nga xamante ni mooy Babacar Xuma xam nga moom joueur Sassuolo la Sassuolo ñoo ko ablé woon ci club boobu nga xamante ni mooy Alanya Sport ci Turquie ni ki daaw voilà moom Babacar Xuma dafa war a dellu fi nga xamante ni mooy Sassuolo ca Italie waaye ci kaw loolu ñi nga xamante ni du AS saint ko signé ci janvier bi la dal di koy yóbbu foofu la ca France bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante ne mooy Kingsley Coman waxoon nañu leen fi démb ne day prolongé ak clubam bii di Bayern jamono yi loolu officiel na yokku na contrat ba 2027 kon moom dematul fenn comme ni leen ko waxee woon moo nekk ñetteelu joueur bi lu muy fayeku jamono yi ci club boobu la di Bayern Munich. ki nga xamante ni nag mooy Lucas Digne Lucas Digne bi nga xamante ne français la tey footballeur foofu la ca Everton kii di xibaar dañoo fesal ne moom jamono yi dégg nga maam lay dem fële nga xamante ne mooy Aston Villa foofu leer na déggoo am na 27 millions d' moo aju ci transfert boobule Aston Villa ñooy fay lu toll ci 27 millions d' ñii di waa Everton dal di ki nga xamante mooy Lucas Digne moom nag jamono yi da dina amal li nga xamante ne mooy visite médicale am signé li nga ne mooy contrat bi fekk ji la ki nga xamanteni tam mom lañuy wax El Gassi El Gassi nek attaquant bu Aston Villa mom kon ci geneen walu galay dem mom day joggé Aston Villa dem Everton ki di xibaar fi sol nañu jamono yi man lañuy wax ni accord amna ci digënté ñaar club yi Lucas Digne kon mom day dem Aston Villa El Gassi bi day dem fa li nga xamanteni moy Everton ñaari transfert la yo xamne dafa wuté de nga balé 27 millions mo ci aju bi nak xamaguñu ñëk gi numu tollu wa ak lu mëna xew mom di xibaar fi son nañu ne accord amna ci digënté ñaari club yi El Gassi day dem signé ak wa Everton Chelsea football club dañuy daal indiwaat ki nga xamante mooy Kennedy Kennedy bi nga xamante ne la daaw dañu ko able woon wala bokk ren jii dañu ko able woon fële ca Flamengo ci championnat bu Brésil kayiti xibaar yi fesal nañu ne Chelsea football club dañuy dakkal li nga xamante mooy able boobu ñu ko abloon day dellu waat te mën nañu ko able ci beneen club waaye ànd ak loolu yëpp ki nga xamante mooy Thomas Tuchel di entraîneur bu Chelsea wax yi indiwaat ki nga xamante ne mooy Emerson loolu waral na ba kayiti xibaar yi ñu ngi fesal ne de ki nga xamante ne mooy Kennedy bi su ñëwee amaan na moom mooy des foofu dal di koy wuutu waaye loolu yëpp leeragul Thomas Tuchel dina waxtaan ak dirigeant yi ci mbirum Kennedy bile balaa muy génne di demaat fenn. ki nga xamante ni nag mooy Arthur Milo bi nga xamante ne ancien joueur Barcelone la te nekk fële ca Juventus jamono Arsenal ñooy waxtaan ak Juventus ngir bëgg ko bëgg ko signé waxtaan baa ngi avancé bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Arsenal la bëgg mooy ñu abal leen ki nga xamante ne mooy Arthur Bile ba saison bi jeex. ki nga xamante ni nag mooy Kolasinac Kolasinac ba tey moom foofu la nekk ci Arsenal ak ki nga xamante ne mooy Pablo Mari ñoom ñaar ñii ñëpp jamono kayiti xibaar yi ñu ngi fesal ni Arsenal dañu leen bëgg a appelé bu dee ki nga mooy Pablo bii de moom mën nañ ko able fële ca Italie ci club bi nga xamante ne mooy Udinese waaye nag bu dee ki nga xamante ni ne moom mooy Kolasinac moom ñu ngi koy séentu fële ca Olympique de Marseille Olympique de Marseille ñoo bëgg ñu abal leen ki nga xamante ne mooy Kolasinac bile ba saison bi jeex gannaaw bi ñu complété signature ki nga xamante ne mooy Cédric Bakambu foofu la ca France. El Clasico Real Madrid ak Barcelone mu aju woon ci li nga xamante ne mooy Super Coupe d'Espagne. demi final bu njëkk bi joué nañu ko Real Madrid dafa dal di dóor Barcelone ñetti bal ci ñaar mu nekkoon match bu rëy boo xamante ni gisoon nañ ci geneen xar kanam goo xam ne Barcelone wan na ko njii di waa Real Madrid donte ne ñoom dañoo ñàkk waaye Real Madrid moom dégg nga dafa dal di qualifié ci li nga xamante ni mooy final wala demi-finale boobule jamono nag ñuy xaar ana kan lañu war a dajeel ci final bi war a dox diggante Athletic Bilbao ak Atlético de Madrid mooy beneen demi-finale bi képp ku ci dóor ci ñoom ñaar mooy daje ak Real Madrid comme ni leen ko bu neex bu doxoon diggante Barça ak Real ki nga xamante ne mooy Vinicius Junior moo njëkk a marqué ci vingt cinq minutes voilà kii di Luc de Jong te daal di égaliser ci jogante googu Karim Benzema dugal ci soixante dixième minute Ansu égalise encore ñi dem ci li nga xamante mooy prolongation foofu la Real Madrid si soog a gagné ndax ki nga xamante ne mooy Federico Valverde moo marqué ci quatre vingt seizième